Nous sommes venus des administrateurs civils du Sénégal euh, indi ko ci la septième étape de tournée tourner Dakar d'abord le ministère de la santé la pandémie a démarré rek ministère pour 3 millions de francs CFA ci ay bagages.

ñaari daara yu nekk Dakar ñëw bu fa suñu jàppale tey ci suba ñu demoon Fatick jàppale fa ñaari daara tey ñu mujjee ci pouponnière mbuur muy septième étape ci don boo xam ne bii valeur totale bi mi ngi àgg ci euh, ci 3 millions de francs CFA. donc mu nekk loo xam ne lii rek dañ koy def ngir jàppale nguur gi jàppale nguur gi nag su ma ko waxee mooy jàppale état bi euh, niñ koy defee comme ñun amicale des administrateurs civils du Sénégal suñu devise mooy servir l' état de l' état loolu moo tax suñuy membres.

may profité ci état bu Mbour bi rek di sargal té de bu baax baax di encourager di féliciter personnel commandement territorial bi nga xamné moy gouverneur yi préfet yi ak sous préfet yi ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci xeex ak fébar bi ci wetu ministère personnel de santé bi ci wetu force de sécurité yi euh, président de la république ci bopam gis na liggéey bobu commandement territorial bi def ba conseil des ministres félicité na leen waaye ñun tamit en tant que tey jii mën nañoo wax ne fier nañ ci sun membre yi nga xamne ñoo nek ci commandement territorial bi am nañ liggey bu am solo bo xamne bi def nañ ko ci xex ak febar bi ci organiser nit ñi ci réglementer circulation bi ci lépp lo xamne ni nguur gi soxla nako rek ci walu mesure taxaw nañ ci tem ba tey jii am ay succès yu bari am nañ ko ñom man nañoo wax ne duggal nañ ci seen loxo donc occasion la pour que vraiment ñu delloo leen jukkal jaajeufal leen encourager leen xamal leen nak defuñ ko pour sen bop mais dañ ko def ngir sen rew ndax ñun suñu devise administrateur civil moy jariñ nguur waaye baña a nguur donc lool nak bu nekké sa devise li boko defé def nga la war di sant yalla suñu borom bi di jël yox suñu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamni préfet indi nako ak monsieur le maire de Malicounda au nom de l' des administrateurs civils du Sénégal ñu indi di sant di lay ñaanal parce que liñ doon wax rek liñ doon ñaar rek moy li parce que dafa nekk pouponnière bo xamni 180 148 enfants ñofi nekk

Hein? di ñaan ak ñëpp nag li commencé parce que état aussi manifesté remercier aussi de ce soutien qui n'est pas négligeable di ñaanal ñëpp nag pandémie bii nga xam ne moo fi nekk encore seen activité normale ñu ñaanal ñëpp di remercier parce que dafa mel doon ñaan une reconnaissance du publique kon en ce moment yaakaar na sunu sunu njàmbat dina wàññiku parce que pouponnière bi ni muy fonctionner mooy ndimbal kii indi garab kii indi xaalis kii indi yére ñu dajale ko di ko jox xale yi bu fekkee nag état bi def reconnaître nañ l'utilité publique yaakaar naa problème dina gën a wàññiku xale yi fi nekk nag at fii je peux dire Sénégal gépp fi am ay représentants muy Kolda ni joge Tambacounda ni joge Fouta ñëpp 148 enfants ñoo ak 116 personnes ñoo fi ak présentement ñoo xam sax day nekk en chômage technique ñu ñaanal ñëpp nak di leen remercier ci tur xalé yi ci tur képp ku fi liggéey ñoo jaay jëf yalla yàlla fay te jëlee fi Covid bi nga xamné mo moo nekk ci lëmb aduna bi yalla na ko fi yàlla